Bienvenue sur Salam Vision. baaxul yaa ngi teggali luñ fi defoon waaw. Thank you. Sane Mbacke Sylla ñooñu ñoo xam ni am nañ ko fa gën a def lépp a gën a seen bopp xam naa yaakaar naa ne dañuy dégg mbokk xam nañu mbokk ci li am nañu ci bariwul man damay jàpp ni boo ci ñëwee trop tànn nañ seen ndoxam. naka la ñu fekkee bàcc xaar ci raadu muy xamul ndong la dama ne li ñu xam ne suñu jumte li nga xam ne moom mooy mooy musiba jàngal ak musiba jàngal ak musiba mënuñu si suñu mën a woote. nañu ko am seen xel nañu ko xalaat nañu ko xam ni bu la defee tey xaalis nga voté dina la jàppaat beneen at nga xam ne loolu nga xam ne def ñuy doy ba si mën dara. kon dina jàpp ni lépp lu ñu defoon wala ñu xalaat ñoom dañ ko koy waxee est-ce que li nga xam ne am na خلوت مدرسة ملائكة الزنبي قدرني جاني بمجرد مدرسة بمجرد مدرسة بمجرد مدرسة Yeah. Cheikh Saamu la jenn jox Paa Youssou Ndiaye jox si yàlla def yal na ko yàlla yërëm Paa Youssou Ndiaye waaye itam fii xam ngeen fii Mbàkke si la ndax xam ngeen ni kenn wala moom ba mu def la ñëw ñoom la ko yeggale ñu leen di ñaan ngeen sànni ko Fatou Ba ngi nii jo bulletin bu jaune la ak bulletin yu vert ñu koy wax Nafoore Nafoore mi ngi nii ñu leen di ñaan ngeen jàppee Mbàkke si la mu yeggale yéen su ko xanaa yéen loolu ñu koy yéen ñax ñoom leen leen ñëw jox leen jox leen jox leen loolu jox leen ngeen jàppale parce que xëy na yeggaleen ñeeneen si kooku képp si ko doon wax ay noona ko ne ñu yeggale ay liggéeyam moo taxoon ñu dégg waaye yàlla defoon loolu ba mu nekk candidat ñun sa njaboot fa ñu si njaay ñoom leen di wóor jël si yàlla bi yàlla ka yàlla yërëm day yeex waaye ñu si njaay yàlla ka yàlla yërëm waaye sa seeg xam ngeen suy bàkke si la ni ko na leen def ñeen ñoom leen di wóor ñeen ñëpp ngeen waaye sax si léegi nag ñoom di ñaan léegi séeréer yi fànn moo leen doon fay fii léegi taay ak ay suba ak ak ay naanee ko ko séeréer bi jigéen ñi nga tiisi ci si liggéey entertain fànn yi si nekk moo leen ko séeréer liggéey ba tax de sa façon mu yëg na la yéeneem ci kon si ndax kat daa ko yor Mbacké Sylla lanu wax Mbacké Sylla lanu wax Mbacké Sylla lanu wax Mbacké Sylla déedéet yow xam nga ci dara xam nga kuy Mbacké Sylla foto ma ak Mbacke Sylla waaw ay waay yow wax nga lu neex nga boo doole bi boo fi nekk waaw boo ko nekk daa doole leneen dafa doole pour taxawu waat wax ko jàppale ñu léegi ñu ngi liggéey woon doon yéene koko ji lu ba doole bi boo fi nekk ba tax dañuy jël ci ñëpp ngeen jàpp si bu fekkee doo nekk nii boo ko tee bu jóor bi am bi jàpp yi ne doon tey faaw ba nii ba bokk boo leen ko boo leen ko tabaxal te am na yeneen yéene yoo xam ne moo ëpp lii waaw te boo fi nekkee mooy commune te lu mu gàtt gàtt am na ñu ñu gën a bàyyi kon nag ñun ñëpp ñoo ñëw jàpp ci ci liggéey bi waaw wasalaam. waaw waaw. bëriwul te teel a bëri te liggéey bi waaw teel a ji wax gàtt bi lu mu gàtt gàtt dem na ci réew mi te yàlla tey ñu ci tëj bi ba léegi xamee ngeen fii teel ngeen ko teel bi ngeen bi mu ngi nii xam naa ne contre président de l' Ndeye Sylla bu ko waay yii ku ko bëgg a jàppale nga jàppale ko bu ko ci biir kër bi. waaye te fii dafa am lu ñu koy présenté monsieur le maire maire Mbacke Sylla waaw su ko bëggee jàppale nag dañ koy jàppale ci biir dafa mel ni dañ koy doog a dem ci dëkk kon boo ko doon ñu ànd ak seen sàmm ci la dara ñu doon baax ni nga xool ko suñu soxla ci ko am naa ko ci ko waxtaan am seen ñu def barati bu lekk ñu koy jëm ndax sëriñ Mbacke si la bu lekk ñu koy dëgër ndax sëriñ Mbacke si la dama amal mbooloo ñu doole c'est bien beau waaye nag defoon naa fi nangam ba ñëpp gis ko dafa am résultat kon ji Mbàkke si la dañu koy ñaaral yàlla na ko yàlla jox ndam li yàlla ko yàlla taxaw yàlla sàmm ko vraiment taalibe bu baax la non seulement taalibe bu baax la mais ku gëm goo xam la ku bëgg goo xam la kon nag yéen ñëpp maa ngi leen di siyaar di wax nag le 23 yàlla na ngeen yëkkati seen i drapeau voilà merci beaucoup merci vingt jours rek nii toogu leen guddi toogu leen bëccëg looloo tiital looloo tiital gars yi nag nee na looloo tiital gars yi moo tax ñu def li ñu a def moo tax ñu def waaye du waaye du jàll waaye du jàll suba damay ñaan yàlla dama ñaan leen dama ñaan leen rek suba may may dinañ non dafa nag may may waaw may leen ma loolu may may ma rek léegi dama lay xaalim jërëjëf suba damaa woo ñëpp fii suba incha allah bëgg naa ñëpp neen suba cinq heures ngeen dimbali ma rek suba cinq heures ku ñëw koo mën naa di ci mbool la nga ko indi woo naa ñëpp ne bawuma kenn suba 5 heures daa bëgg ñu teel ndax journaliste yi war a ñëw dañoo war a teel dem te dañoo war a dégg war a dégg li leen di wax mandataire bi ak ñi ne képp dañ toog wax li war a wax ndax gis nañ li ñu def ci bulletin yi loolu na il faut ñu daje waat suba 5 heures def benn ndax suba mooy dar dernier daje suba la affaire yam dañ leen wax li ñu leen war a wax sinon bu ñu ko changé wul suur wot ba beneen affaire yam na leer nañ ndax man du ma liggéey ànd sama nit ñi baax ñi xale yu sawar yi guddi du ngeen toog guddi du ngeen toog bëccëg jigéen ñi góor ñi ku nekk fu ne waaye door fu sa bopp ba liggéey ba agsi fii ñu naan dañ ko yàq ñoom buñ ragalee buñ ma ragalee ba tax ñu bëgg def loolu amuñu jom ko amoon jom doo def loolu bu amoon jom amuñu jom dañ ma bàyyi ma dem élection ñu xam waaye dañ maa bëgg tënk may na yàlla moom ñëpp la fi nekkal jërë ngeen jëf Thank you. sur Salam